Leewtoo TV eh. ma i moof na boongi eh. eh. ma gel waar we mbada njaayo njaayo e jërë jëf suñu mbokk yi ñuy topp ci Leewtoo TV mbégte ak contentement la ñuy am heure bu ñu jàkkaarloog yéen rawatina suñu mbokk internet yi nga xamante ni bii ñu ngi ñuy topp saa sune ñu ngi leen di ñaanal jàmm ak salaam tey nag ñu seet si suñu yaay suñu xarit di kenn ka nga xamante ne bii kenn mënul wax tudd làmb te doo ko si boole ndax làmb dafa am lu mu baaxoo muy ambiance dafa am lu mu baaxoo muy bëre te bëre mënul dem sans ambiance te suñu yaay jii ñu seet si nag bokk na ci ñi nga xamante ne bii ñooy def ambiance ci làmb ji dama koy faral di wax am na ña nga xamante ne bii suñu daggee seen billet bu ñu ñëwee bu woykat bi woyee ba pare rek su leen neexee mën nañoo ñibbi ndax ñoom seen xol sedd na tey ñu seet si suñu yaay ndey faatu aadama jali di woykat ba nga xamante ni bii su nee der ci làmb ñëpp xam ne ndaanaan yuuxu na yaay booy ñu ngi lay dalal ci Leewtoo TV di la wax salaamaaleykum doomi maa ngi la naan asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu yéen waa Leewtoo TV maa ngi leen di nuyu di leen di sant di leen di gërëm ñi commencé nag ci bisimilahi rahmaani rahim eggale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin euh, sant yàlla bu baax a baax a baax a baax gërëm ci julli ci yonent bi mm, di leen di sant di leen di gërëm di nuyu mbooleem jullit jërëjëf yaay boobu yaakaar naa nuyoo bi matale na yaay duñ def rek lu dul xuus ci biir waxtaan bi euh, ñu gis la nga nekk woykatu làmb mm. première question bi lay njëkk a laaj mooy euh, lan moo la dugal ci woy làmb da nga koo wala dafa nekk la nga xam ne da màgg rek dugg ci. Hmm. waaw Babacar kontaan naa bu baax a baax a baax kontaan naa question boobu nga ma posé question bu ma neex la. Euh, woy làmb nag dama ko yàgg bëgg. waaw woy làmb moom donnu ko dama ko jàng. waaw woy làmb dama ko jàng bëggoon ko yit ba mu ma yàqal njàng école. kan moo la ko jàngal. waaw woy làmb dama am dama ci am ñaari côté yoo xam ne dama ko cee dugg ndax dama amoon benn xarit. Euh, bu ñu tudd yaaxaandam ñu di ko wax Awa Diop mu dëkk ca dëkk ba ñuy wax loog sum ca loog la dëkk mu dëkk bu ñuy wax sum ñu doon ànd mu nekk sama mag la woon nag maman boobu sama mag la nekk sama xarit ndax moo ma njëkk a tuddee doom nekk sama xarit moo ma dugal ci woy làmb ndax bu làmb yi jotoon bu ñu waxoon ne décembre jot na rek après dañuy préparer da ngay gis xale yu jigéen ku dëkk boo dëkk rek ñu ngay préparer pour ñibbi. pour bugg a seetaani seen làmb dëkk. su ko defee man maman boobu damay ànd ak ñoom li nga xam ne moo war loog yëpp. ñu dale ko ci booy dugg ci dëkk bi booy commencé loog nga njëkkee ci mbam. génn dugg caare génn dugg sum génn dugg ndoorong doog a egg ba ca dëkk beneen dëkk ba muy mbasis muy juróomi dëkk yooyu nga xam ne moo nekk loog dama ci amoon ay xarit yoo xam ne. xarit yi saa yu làmb yi jotee rek bu ma jógee ci dëkk bi rek damay dem waat sama beneen xarit bi rek fekki ko te bu ma eggee maman boobu. Mhm. amuloon woykat. Mhm. maman boobu amul woykat maman boobu képp dëkk buy tëgg làmb rek jéeg ña nekk ca dëkk ba wala jànq ya nekk ca dëkk ba ñooy woy làmb yooyu. ñooy organiser làmb yooyu. Mhm. loolu moo ma gën a nag dugal ci woy làmb ma bëgg ko. ma jóge ci yaaxaandam comme bëgg naa woy làmb te intéressé na ma yàqal na ma sama njàng ndax bu ma maa ba bu jotoon war na leen décembre bu jotee mm-hmm. ci njàngum école lay toom bu fekk xale yi mm-hmm. mais man damay dem topp ñooñu di woy ay làmb bàyyi sa njàng bàyyi njàng mi waa topp woy yi mm-hmm. ñi ma ñib see lu bari def may raw ma soo cee am jafe-jafe ak say wayjur <laughs> question bu ma neex na nga ma nga ma nga ma question ma jox question mhm. bu ma neex mhm. man sama benn waajur bëggul woon ma woy làmb mhm. parce que boo tolloo ci jàng ñu lay jàngloo voilà jàngoo topp way yi topp say waajur surtout sama waajur bi ngeen toog fekk ci jigéen sama waajur bu jigéen bi ngeen fekk ci ci kër gi muy sama yaay di awasaar di ko ñaanal yàlla yàlla may ko gudd fan ak wér ndax ku tal njobootam la ku mun njobootam surtout man mi ci artiste ku tal ma ku ma tal la sama groupe bu taxawee tey yàlla ak moom la lu ko naqari woon la sama yaay bu ma ko mayee léegi xaalis sax dama ko naan eh, est-ce que yaay boo ma rayoon dinaa la may xaalis <laughs> sama yaay bëggul woon ma woy làmb ba am na benn làmb boo xam ne fekk si na ma fa ne bu ma fekkee ci làmb bi daf may rey rek ah bon ndax daf ma bàyyi woon fii ci kër gi mhm. euh, caatam ak ki topp ci kaw caat bi dem mhm. dëj Kaolack mhm. ma daal di bàyyi fii sama doomam boobu bàyyi ko fi ñaari xale yëpp ma baleen fi dépense bi ma jox pour ma dem marché ma daal di ci paas dem woy làmb ma paas ci xaalis bi bàyyi xale yi toggal leen som bi defal leen suukar dugal ci frigo bi daal di paas dem woy làmb làmb bi mu ngi nekkoon wetu Fatick mhm. bi ma dabsee ci làmb bi daal di ne ñëw nuyoo sama rakk bi asu ngom mi nga xam ne moo ma doon awul rakk baabu ngoom mhm. kooku maa ko dugal ci làmb jàngal ko woy làmb ba mu di ma awul mhm. mu toll ci wanag bi rek dégg sama yaay di nuyoo rek mu daw si na ma dugal ci ron lal bi sa yaay ñëw na rek ma daw dugg ci ron lal bi sama yaay eh, yeg faatu lay laajte président bi ne ko kooku ñibbi na mu ne ko ñibbi <laughs> bu ma ko fi fekkoon danaa ko rendi fate laa koy def président bi ne ko. <laughs> président bi mooy ñi ñi tëgg làmb. bi ne ko waaw boobu dañ laa nëbb. ma nëbb maa ngi ci néeg bi te li ñuy wax yëpp maa ngi koy dégg. Mhm. mu di ma ne waaw ko yow dañ dee faatu dee dinañ xam ki ko rey. Mhm. waaye yow moom boo dee buñ la reyoon kenn du xam ki lay rey ndax dëkk bi yëpp lay rey. Mhm. sama yaay wax noonu daal di jëlaat saret bi de yéegaat ko demaat ñibbi. ci guddi gi ay une heure du matin deux heures ci lañ ma dugal saret lu bokk ci sama programme la ba tax mu gën a tax ma am jom ci li may liggéey. ci guddi gi lañ ma dugal saret indi ma ci tournalu Fatick bi. waaw booy seen Fatick di jël seen xorom yi noonu ci tournal bi fa lañ ma wàccee fa lañ nekk ba quatre heures du matin laa doog am oto bu ma indi dakaar parce que ñemewu ma suma yaay egsi fekk ma ci kër gi fekku ma ci kër gi te ñooñu dañ ne ko ndey faatu woy siwu fii dafay yónni ay nit te boobu daa ñëw ba bëggaañ yaay jël saret laajte ba ñu jox ko renseignement ne ko fii la ndey faatu di woy kon loolu bokk na ci li nga xam ne samay mbokk sama papa bi nga xam ne artiste la sax. après à la fin. la la bëgg ma woy mais bëggul woon ma woy làmb. sama maam bi ma yar aussi bëggul woon ma woy tax parce que dañoo bëggoon ma jàng. dañoo buggoon ma jàng. bokk na ci li ma yàqal jàng loolu moo tax ma takk ci sama sër. Euh, góor góorlu ci bu baax ba li ñu séntu woon ci ma ma jàng école pour jàppale leen ci seen àddina ak seen ci terangal leen ko ma di ko def ci woy làmb pour jàppale leen kon mën nañu wax ne euh, euh, li séntu woon ci boo ci am njàng mhm. pour nga dimbale leen ci yaa ngi koy def ci ci woy yi waaw maa ngi koy jéem mhm. ndax waajur kenn mënut a def ci moom lépp mhm. boo yóbboo waajur fukki yoon màkk sax fayagoo ko taxul nga fay soo yóbboo sa waajur bu góor fukki yoon màkk sax taxul nga fay ko ndax lu ñu mun tey waajur yee tax ñu mun ko uh-huh. surtout man uh-huh. surtout man man sama yaay li ma jaral man li ma ko jaral uh-huh. dama ko jaral lu bari sama yaay dama ko jaral lu bari loo xam ne daf ko kii ci dundam bëgg ko ci dundam reyante ko ci dundam bëgg pour ma réussir ndax euh, ci looy def nga jur doom amul benn waajur bu bugg a jur doomam te doom ja tekkiwul ba yor la amut. wallaahi mbete da ngay am échec ci say doom yàlla moo la koy sedd. mais ku am rek li nga am rek yàlla moo la yar baaxal yàlla moo la yaral say doom ba nga am li nga am ci say doom. mais lépp lu may def ci sama waajur même bu nekkee am pagay ci ñoom buñ koy gis mu bëri. Mhm. yow da nga koy xeeb lu tuuti la ci man. ndeysaan lu tuuti la ci man ndeysaan waajur kenn mënu koo kenn mënu koo fay. ci noonu rek ñuy ñaanal bu baax a baax a baax bépp waajur ba nga xamante ni bi yaa ngi nekk ak sa njaboot mhm. suñ borom bàyyi la ba nga fekkee sa njëriñu njaboot waaye yaay booy nga jógee foofu nag euh, mel ni euh, euh, woy yi gën la dugg waaw virusu làmb gën la dugg nga continuer di di di di woy làmb mm-hmm. ñu gis la nga nga doon ànd ak yaa xadi waaw mu nekkaat nag nga tudduma ma koo xam ne bokk na ci sama sama àddina bokk na ci suma vie. Mm-hmm. duma xëy suba ba ngoon jot du ma sëgg julli waxtu bu ba pare mm-hmm. te ñaanalu ko su ma ñaanalee samay waajur yu góor ba pare waa ñaanal sama waajur bu jigéen dama ci teg Khady Diouf parce que daf ma jox ñaan bi nga xam ne dafay doog a yegsi bu nit ñi yaakaar dara bu nit ñi sóor dara ñaar bi ñaan bi mooy doog a yegsi comme samay waajur bëgguñu woon ma woy te dem nañ ba xam ne woy yi ci la sama teraanga nekk ñu di ma ci ñaanal mu sama waajur bu góor di sama waajur bu jigéen di sama waajur bi nga xam ne moom mujjee yor sama yaay ci kër gi ci moom moom kër gi ñu nekk nekkoon moo doon mujjee ci sama yaay. Uh-huh. sama yaay bu ma dooroon ba pare sax mu uuf ma teg ma ci kaw lal bi ne ma muñal. yàlla dina la defa sutura. kon bu ma jógee ci ñooñu nga xam ne ñoom la ma yàlla séddoon. Uh-huh. yàlla boole ma ak Khady Diouf. Uh-huh. mu nekkoon nag koo xam ne ku ma bëgg la. daf ma bëggoon Khady daf ma bëggoon ba. Euh, lépp liggéey lu muy métti métti ci li ci njàngum liggéey métier rek. man métti na ci sama côté. mu ma doon woyloo daf ma doon woyloo boo sama baat dee. su ma yuuxu bu ma ko waxee na ne xadi munatumaa woy mun na ma woyal ci woy rek ngay teddee ma ne ko ah mun a ma ci woy rek ngay teddee woyal ma ne ko ah mun a xadi sama baat bi dafa dee mun na ma deewul loolu yàlla may ma ci nag may forcé loolu ba loolu laa tàmm sama baat lu mu dee dee dee dee su ma woyee benn woy ñaari woy rek baat bi dem parce que loolu xaddi moo ma ko tàmmal moo ma ko miinal def ci man lu bari jàngal ma lu bari mm, dugal ci sama xol bi lu bari xadi jàngal na ma tabe xadi jàngal na ma ni ñuy gérer groupe xadi jàngal na ma ni ñuy ànde ay nit xadi jàngal na ma communication lépp lu nekk ci man rek xadi daf ko dafa def ci man lu bari loo xam ne bu ko doon wax wala mu di ko doon def ndax boo doon wax yenn yi ak nit ñi sax ñun ñi nekkoon ay xale xamuñ woon njiit xamuñ woon yoon dañ ko doon xas am na benn jour ma di ko xas naan ko amoo benn fayda buñ ñëwee ñu di la wax lii di la wax lii doo tontu mm-hmm. nga dégg mu ne ma mu daal di ree ñu dem ci làmb bi di woy ba làmb ji guddi ma sëgg di nelaw mu def ma nii door ma ba ma siggi nii xool ko na ko xatli loo wax xool ko xool bu ñagas nag mm-hmm. ndax boobu gémmintu bi jàpp na ma bëgg naa nelaw mm-hmm. mu daal di daal di ree juuf yal na ko yàlla yërëm mu daal di ree ne ma yal na la yàlla def njiit yal na la yàlla def seef yal na la yàlla def nga jiita groupe fii ma toll yal na nga ma paase ma daadi ko ne amin sëggaat bàyyiwu ma de sëggaat sëggaat di nelaw mu bàyyi ma ca suba ga mu owaat ma ne ma ndey ma ne ko amuna ah, ma ci wëy nga dugg ñu di la ci tere sa mbokki di la ko tere te yaa ngi ci ba léegi te nga ci lu ndax nga am ci li nga bëgg am xam naa ne man dinaa la ñaanal ci sama xol fu ñu tuddee benn woykat ñaar da nga ko nga ñeenteel wala nga nekk première wala nga nekk deuxième fu may woy loolu it dama koy bokk boole ci bu ma toogee ci géew dafay nekk ci man dama koy dama ko yàgg def ci sama xel di ko dund di ko doxaale ko dund waa ñaar ñaar ñaata at nga ànd ak yaa xadi xadi su ma njànqatu yëpp ci sama ba nii ma mag ci xadi rek laa nekk man xaddi topp naa ko âge de 12 an 13 ans. Mhm. Mhm. ci âge de 13 ans lañ ma may fii jëkkër ma di ko bañ ndax woy làmb. Mhm. di daw waaw ma bañ daw yër waago ñibbi yër waago ci xaddi Diouf. ndeysaan. yaayu Faye Mbodj bi ngeen di dégg moo ma jàngal togg tey cere di jóge yër waago dëkk ba xaddi juuf dëkk booba dëkk ba ñàkk na ndox. may jóge yër waago ba kër moo da di rooti foofu. kon li ma def yëpp. ëpp na 30 ma xadi ëpp na 20 ans ma xadi ba nii la ko yàlla di jël ci kawam laa nekk làmb bu ma woyi moo ma ko jox bu ma engagé woon làmb itam te yëgu koy dama koy indil avance bi dama koy indil avance bi jox ma bu làmb ji jotee mu jox ma ay nit ma ànd ak ñoom dem woyi làmb ja. ok ok mhm. kon kon yaa xarit bi muy dund euh, boobu fekk na nga yor sa groupe boobu fekk na nga yor groupe. waaw xam nga ñu bëri dañuy naan Khady Diouf dafa dëddu àddina Euh, groupe yu bari Khady Diouf dafa dëddu àddina euh, ku ne war sa ku ne def sa groupe. Mhm. Khady laata muy dee la la sampal ku ne ndëndam. Mhm. laata muy dee la samp groupe am xëy na xamoon na lii ndax ku ne nag yàlla mayoon na ko xam-xam boo xam ne. Mhm. Euh, bu xëyoon ba ne la yow mii tey nii lii mooy am. loolu mooy am. Ah. yàlla mayoon na ko xam boo xam ne buñ demoon ci làmb bu ñu eggee bu ñu xëyee suba teel sax mu ne diw bu ñëwee de mooy jël làmb ji. Uh-huh. bu diw boobu ñëwee mooy daal moom suñu borom daf may mu doon yàlla mayoon na ko loolu muy gis uh-huh. ci xelam uh-huh. yàlla mayoon na ko muy gis xam yàlla mayoon na ko loo xam ne daal lim ko mayoon daal yàlla moom la ko mayoon ci wéykat yi nga xam ne ñoo nekk wéykati làmb yi fii it may ko ñi nga may ko ko nga xam ne ci ñi mu yar ci làmb moom rek la ko mayoon ci moom rek laa ko doon gis waaw parce que yàlla mayoon na ko xam-xam boo xam ne euh, woon na ko ak ñëpp rafetewoon na ko ak ñépp ba quelque mbër bi nga xam ne moo dëkkoon seen dëkk ñu di ko wax Aliou Diouf Yér Waago mhm. baaxoon na ak moom ak moom parce que xadi lamb ju mu waroon na bëri Aliou Diouf Yér Waago ba desul dara ndax final mhm. dana dox di def yëfi yooyu mbër yi di def di bàkku di ñëw jub si xadi bu mhm. ñëwee jox ko loxo daal di dem bëri bu bëree jël làmb ja ba jour bi nga xam ne ci lay daanu en quatre vingt cinq njeejëng muy bëleeg Ismaïla Jam ñaajo bi muy sëgg final bi dafa fàtte ñëw jox xadi jox xadi loxo jour boobu Ismaïla Diamniadio moo ko daan en quatre-vingt-cinq kon mm-hmm. loolu yàgg na de kon kon mu mel ni mu mel ni woykatu làmb ak mbër yàgg nañoo yàgg nañoo seq li nga xamante ne bii moom mooy biir géew mm-hmm. ba tax na yaay damay gis mm-hmm. euh, loolu jaaxal na ma torop nag tëgg la damay gis mbër yi bu ñu dugg see dañuy daw njëkkante si yow ngir di la jox ay sarax waaw loolu lan moo ko waral waaw xam nga nag loolu dafa bokk si li nga xam ne ci làmb la bokk. ndax léeg-léeg sëriñ wala ñu lay jox ay butéel. ay butéel nga téye nga téye nga leen waaw waaw nga di ko téye butéel yi di leen di yëngalal. waaw léeg-léeg ñëw jox la ndox léeg-léeg jox la suukar léeg ñoo xam nga loolu nag dafa bokk ci làmb. Mm-hmm. Euh, li ko indi it léeg loolu sa sa sëriñ dana la ko digal. tegtal da nga jóg waa dina la ko tegtal euh, digal la ko ne la boo demee nga def lii. Mm-hmm. mbër sëriñam danay dem ba na ko fii nga war a toog. Mm-hmm. boo demee boo duggee ci làmb ba pare bu def say débat déeb toogal penk wala nga toog saw wala nga toog fii wala nga toog fale mhm. wala tibal ci suuf si nga bees ko mhm. fu la ngelaw lu yóbbu nga xam ne foofu moo nekk sa place mhm. loolu dafa bokk ci làmb di la tegtal naan la boo demee ba ca làmb ja suukar bi nga yóbbu boo demee jox ko wuykat ba première ki première micro bi nga xam ne mooy chef ba nga jox ko ko wala ki topp ci kawam wala ki topp ci kawam lépp ci tegtal rek la dafa bokk ci làmb rek ñu di ko def kon ñu gis ne mi ngi noonu leer na euh, yaakaar naa leeral bi am na solo mais yaay ñu gis booy dugg si làmb dafa mel ni ñaari façon ngay dugg see. sama gis-gis loolu la ma jox. am na am na dëkk yooyu dem. Mm-hmm. ci bunt bi ngay taxaw ñu jox la micro. nga dugg. Mm-hmm. di way di di dégager comme ni nga koy defee noonu boo man su ma la xoolee ngay dugg si làmb beneen beneen beneen beneen maman Ndeye Fatou laay gis. Mm-hmm. parce que euh, comme ni ma la fekkee nii ak moo boo nekkee ci làmb <laughs> c'est diamétralement opposé parce que am na am na différence. am na dëkk ya nga xam ne boo boo fay dem. ci bunt bi ngay taxaw ñu jox la ñu jox la micro ngay woy di woy ba ni ngay àgge fi nga toog mais am na dëkk ya nga xamante ne bii tamit boo fa demee da dem ba toog soog a jël micro loolu la loolu tamit jaaxal na ma bëggoon naa nga leeralal ma ko <laughs> xam nga man nag damaa damaa sopp ah, noonu la noonu la noonu la noonu la parce que mm, loolu mm-hmm. euh, maa ngi ko commencé lamb Grand Yoff laa ko njëkk a defee Euh, lamb Grand Yoff bi bi ma koy def nag euh, lamb première lamb bi ma njëkk a jóg biir géew di woy lamb jog ci biir public bi. public bi yëpp jóg. lamb Grand Yoff la lamb boobu Issa Diouf ku ñuy wax Issa Diouf sama maa ngi koy nuyu au passage. mu ngi nekk mu ngi jaay marché Grand Yoff moo doon tëgg lamb. bi muy engagé mu ngi jaay HLM. waaw bi mu may engagé lamb bi dafa ñëw mun a ma léegi dama lay engagé pour nga woyoo si ma mën a ko ban date mu wax ma date mën a ko yii date boobu duma ma ci mun a ñëw parce que dafay tombeek benn dëkk boo xam ne dama koy woyi te ñooñu wax naa leen digg naa ak ñoom dama leen di woy te bëgguma wax muy dañ muy deñ mhm. léegi nag mun naa mën a ko li tax xam naa ne dinaa la woyal si mais bu ma munta ñëw it danaa la jox si sama deuxième micro ak ci topp man maraam ak xale yi ci làmb ji mhm. ndax comme maay dirise danaa mun a dirise ak xale yi dinaa mun a démerde ak xale yi mhm. paa paa bi mu toogal ci wetam daal di ko ne jox ko avance bi mu ne ah moom nee na du ñëw ma jox ko avance mu ne ko jox ko avance bi wax na la wax bu leer bu ci xëjee danaa ñëw bu ci xëjul du ma ñëw danaa la yónnee si ñu la woyal sa làmb te moom nga jëloon pour mu woyal la jox ko avance bi ba beneen yoon mu daal di yëkkati avance bi jox ma ma dem làmb ba may woy ma egg mu ñooñu oo ma waa làmb ji ma ne ma mère Ndeye ma a ko ah mun a xam nga ne suñu làmb ji lundi lay jeex. Mhm. ma ne ah Issa Diouf a ngi bugg am ah, sens kat. Mhm. ma ne ko lundi ngay jeexal lundi ngeen di jeexal mun na ma waa. boobu làmb Issa kañ la woon. dimanche dimanche. làmb ja dimanche la. Mhm. fee commencé jeudi vendredi samedi dimanche war a jeexal lundi. ndax ñoom chaque jour dañuy bugg jeexal lundi ndax mun a am ay mbër. léegi nag man ma tam ma daal di dem muy dëkk bi ñuy wax Simal. ma daal di dem foofu woy fa vendredi. bor set samedi. ma di fa woy bi ma woyee foofu ba mu tas. damaa woy simal ba mu tas. ma dugg oto dem eggali ji làmb Toubacouta bi doon jeex samedi. bor set dimanche ma ñëw Dakar ci làmb Issa bi Issa xamul ne ñëw naa damaa ñëw rek nekk sama kër mag bi Grand fu tëdd. ñu toog toog ba bi muy def 4 heures mu oo ma téléphone ne ma jox ma numéro téléphone kii ñëw. ma oo leen ndax ma ne ko ñëw ñu ñëw nañ ca fajar. jox ko numéro sama deuxième ko maa ngi maa ko ne maa ngi Dakar de ma jox numéro ma jox ko numéro kii wëy si làmb ji oh. mu oo kooku na ko dugg si leen ñi ñaa ngi dagg billet bi rek te yegg seegu leen ñooñu daal di dem uh-huh. di woy làmb ji di woy làmb ji ba ba xaw ma ko sàcc isaane ko sa làmb ji dina toj meer ndey ñëw na hmm? na ko meer ndey ñëw na mu ne ko mukk meer ndey ñëwul oo naa ko téléphone sànq bi ñuy def 4 heures moins 10 hmm. laa ko woo mu ma xale yaa ngi fi hmm. mu ne ko demal dawal rek doxal rek mel ni kuy dem kar ami Collé na nga dem foofu yàlla dogal Issa ñëw fekk fa benn mbër buy ngem bu mbër boobu Issa fekk foofu moo jël làmb ji keroog. làmb jooju la fekk muy muy bëre bëgguma du mbër bi parce que nag ñu foog ne ay far parloo la. mais ñi ñi seetaan làmb ji danañ xam ne mbër bi jëloon làmb ji. mu génn rek fekk mbër boobu di gem di ngem maa ngi koy pasa maa ngi koy jox nuyoo. démb rek la ma yónnee si suukaru koor muy xaalis bu baree bari bari maa ngi koy ñaanal yàlla moo xam ne mu bëgg yàlla na ko ko yàlla defal. mu di ne mu daal di taxaw rek daal di génn si na ma lamb ji fees na ba maa ngi bëgg a bloqué euh, géew bi ma daal di ko gestu na ko dangaa kontaan rek ndax xamoon ne danaa ñëw mhm. mbër bi ma lay wax day dugg mhm. man itam may dugg coow li na kur mhm. nit ñi di yuuxu coow li yuuxu ma daal di dem jël micro bi nii woy di woy di woy di woy ba yàlla dogal Maodo tëgg tëgg bu neex nag rythme boo xam ne dafa dugg mu nekk sama rythme bu ma neex saa yu ko géwél tëgee ci géew rek ma rakkaaju su ma rythme la waaw rythme bo <laughs> mooy rythme bi ngay gis ma yëngatoo ci géew rek <laughs> du ma ko mun a expliquer ndax mm-hmm. euh, damay kontaan mm-hmm. damay kontaan mm-hmm. bu ko géwél tëgee rek da nga gis ma jóg waaw euh, téye micro bi woy windeel micro daal di windeel micro bi comme ni ma koy defee rek ngeen koy filmer Mm, ma daal di dugg rek mu tëgg tëgg boobu rek ma daal di fekk sama pochette bi. Mm. génne ci xaalis. Mm. rek daal di dem taxaw may ko Maodo Maodo tëgg ma jàkkaarloog Maodo rek jóg dugg Maodo fekk ko ci biir géew bi. rek géew bi turbine bi yëpp jóg. Mm-hmm. yuuxu yi fii làmb ji fii Issa def ko def ba jël saafara yi muy wis ci kaw géew bi di ko sotte ko ci kaw ndax kontaan mm-hmm. Mm-hmm. parce que maman boobu dafa tomb rek géew bi tàng mhm. mu tombé may doog jot woy nga xam ne moom lañ doon woy moo doon taj démb géew bi mhm. ma daal di may ñu ci tuuti ma xool ma yuux rek fekki Maodo riig na riige seeku yaqandiig na faña yu xameen seeku jootaloog yaqeen na ke ñaamaye maakwe an an kana timanjo ma wutaloog seeku nde sar fa pabug eeri njom naye géew bi daal di riir daal di yëngatu làmb ji daal di yëngatu yuuxu yi kenn mënu la ko wax ma daal di daw toog sama place jëlaat micro bi di woyaat mhm. bi làmb ji tase beneen dimanche ba encore ma war faa woy si mhm. yàlla dogal Abdou waxal bi nga xam ne ñooy àndoog seen seen bi daa di ma ne yaay nag ma ne ko amu na ma tey maadum bi ngaan mooy tëgg mais xam nga lu ma bëgg nga duggee tey ma ne ko amu ma ci buntu parce que conseil du doy. Mm-hmm. te man damaa am staff moom bokk na ci samay staff. Abdou Waxal waaw Abdou Waxal bokk na ci samay staff. di mm-hmm. leen di gërëm bu baax. Mm-hmm. bu ma leen limee waxtaan bi du ci xëj lépp mais staff bi dañoo yaatu mais ku ci nekk rek. maa ngi lay nuyu sa tur sant. mu ne ma ci micro buntu bi ngay jëlee micro bi nag nga woy ma ne ko ci micro ci buntu bi mu ne ma waaw ma ne ah, amul problème. man nu ngeen bëgg rek loolu laa que man lu jëmal làmb ci kanam laay dund. Mhm. moom laay dox moom laay bëgg moom laay ñaan yàlla. Mhm. yàlla dimbale ci man ba ma dund. Mhm. ba bàyyi làmb ndax xam naa ne man maay bàyyi làmb mais làmb du ma bàyyi. man man maay toog ne dootuma woyati ba naa woy làmb ak xale yi bàyyi naa xale yi la woy yi mais làmb du ba parce que damaa bokk ci làmb ma daal di jóg ma ne ko ma weranteeg yow daal di jël micro bi off micro bi waxul ma ma dóor sama loxo micro bi waxut ma ne ah micro bi waxul de. Ah. gaa yëpp nag ñu ngi taxaw di ma xool ci bunt bi laay duggee jaar ci biir rek ma dugg ci fi ñu jaay bi ci Grand Yoff ma dugg ci ruq bi. Uh-huh. féete ji géwél ya ca kanam. Uh-huh. daal di taxaw ci biir nag di woy xale yi di aw tribune bi yëpp jóg. Uh-huh. di xool foykat bi fan la ne. ndey faatu mooy mu ngi woy te gisuñ ko. gisuñu ko maa ngi ci biir coulisse bi rek foofu nga xam ne ruq boobu ngay jaar pour ñu dagg billet yi continuer. may woy umi di aw may woy samay woykat di aw may woy xale yi di woy ba tribune bi yëpp jóg di yuuxu mm. ma doog a génn taxaw mm. vidéo bi mu ngi ci sama portable xale yi chaque jour dañ ma koy envoyé mm. ma daa di woy ma daal di ko jël nag mu nekk loo xam ne ñëpp bëgg nañ ko. nga xam ne lii. waaw continuer mu mu mu neex. waaw beneen encore teglante naa ñetti dimanche yoo xam ne maay woy si Grand Yoff. su may ñëw rek kii tëgg làmb bi moo may wax ne voilà ni nga def dimanche laa bëgg nga def booy dugg si. ma jël ko nag def ko ba ñëpp sopp ko nag. Mm. saa yoo ma gisee ma dugg ci làmb te defuma ko rek demaa bett xale yi. Mm. mais amul làmb bu may dem te bëgguñ ma tey micro bi woyee ci biir woyee ci biti dugg ci biir. Mm-hmm. mais suma ma ko deful rek euh, dañuy mer. Mm-hmm. dañuy mer. ndax moom laa leen tàmbal waaw loolu laa leen tàmmal ba bu ma ko deful mm-hmm. dañ koy mer mais du nekk jarul ñu di ko mer parce que nekkul li ngay def chaque jour chaque jour chaque dana toll foo xam ne day sàppi nit ñi mm-hmm. ngay def beneen feem mm-hmm. feem bi may dem mooy xuus dox dem jël micro bi di woy di woy di woy ba làmb ji tar rek ma jog ak micro bi wëndeelu ci biir géew bi loolu dama koy def loolu yëpp pour neexal làmb rek pour yóbbu làmb ci kanam amateur yi kontaan ñi nga xam ne ndax làmb nag ñeent la ñeent moo ci ne day am amateur bi ñëw pour déglu woy uh-huh. am kii ñëw pour déglu woy ak tëgg uh-huh. am kii ñëw pour seet mbër uh-huh. am kii ñëw pour rumbulement bi boole lépp déglu ambiance déglu woy déglu tëgg déglu euh, déglu ba gis bëre yëpp da ciy bokk mais loolu yëpp dafa bokk ci li nga xam ne moom bokk Leewtoo TV ma i moof na boongi ma gel waar we mbada njaayo Leewtoo TV ma i moof na boongi ma gel waar we mbada njaayo e cey bu korita <laughs> lépp dina baax incha allah mi ngi noonu mi ngi noonu loolu moo nekkoon euh, waxtaan bi nga xamante ne bii moom lañ doon amal ak suñu yaay euh, ndey faatu Adama Dialy la fii de suñu maam euh, Adama Dialli nekkoon communicateur ba nga xamante ne bii macha allah ñëpp ko ràññee woon euh, di leen dig daje incha allah bu ci yàlla àndee beneen yoon ak beneen invité di jaajëfal sama équipe bi ma àndaloon Bilal sama man bi merci beaucoup euh, Yacine Fall mi nga xamante ne bii moom moo yoroon appareil photo bi di jaajëfal Nafisatu moom tamit waaw moom suñu assistance bi nga xamante ne bii suñu assistante bi nga xamante ne bii wax dëgg yàlla moom tamit jàpp na ci liggéey bi ba mu rafet merci beaucoup Abdou Wahab doomu ndeyu duudu kontaan nañ ci yéen dig daje incha allah beneen yoon ak beneen invité incha allah. Leewtoo TV eh, ma i moof na bongi ma gel we mbada njaayo e eh. Leewtoo TV eh, ma i moof na bongi ma gel we mbada njaayo e